إلى الكتاب والحديث انصرفا قلبي وقال بمنه المصطفى إلى الكتاب والحديث انصرفا قلبي وقال بمنه المصطفى ملكت أبدل البشر ملايا

aousubillahi min asheytaani irajim bisimillahi rahmaanirahim allahuma salli wa salim wa barik ala seydina wa maulana muhammadin wa ala wa sahbihi wa xeyril xaadimi ummati wa salim asalaamualeykum wa rahmatullah wa barakaatu ñoo ngi am mbégte nekk fii tey ci kër sëñ Touba Aulnay ci Paris ànd fi ak mbooloo njabootu sëñ Touba bi di jëfee ndigal gi nga xam ni suñu sëriñ suñu wasila suñ Muntaxa yàlla ko fi yàlla bàyyi mu yàgg fi lool te ànd ak wér joxe jëm ci bisu xasida le 11 août bi ñu war a def fii ci Paris incha allah yàlla nañ ci yóbbu yàlla nañ ci yàlla yóbbu jàmm ak salaam di ñaan suñu Muntaxa mu yàgg fi ànd ka ànd liggéey bi ak suñu jëwriñ sëñ Mamor Mourtada di ñaanal suñu sang suñu wasila sëñ moor Massamba yàlla bàyyi ko fi. ak njabootu sëñ Touba bi yëpp ak mbokk jullit di ñaan yàlla feebar bi jóge fi ci barke sëñ Touba ndigal googu ñuy jëfee nag ñoo ngi ko ànd ak mbokk taalibe yi ak mbokk jullit fii ci Île-de-France euh, ci suñu kanamu suñu sëriñ suñu imaam suñu jëwriñ sëñ Bousso bi Bousso dañ koy ubbil rek jox ko kàddu gi mu fàttali li solo bis bi mbokk julliti mbokk taalibe yëpp xam ko ñu teewee ko ñu fekkee ko ñu ànd ak ñun ci biir liggéey bi te di ñaan yàlla mu oyof ci ñëpp te lépp luñ ci séntu suñu yàlla suñu borom defal ñu ko ci barke Sëñ Tuubaa mu kawee njortu bépp mbokk jullit bépp mbokk taalibe ñoo ngi jox kàddu gi suñu sëriñ sëñ bu soobee sëñ bu soobee bisimilah asalaamaaleykum wa rahmatullah wa barakaatu bisimilah aouzu billahi min asheytaani rajim bisimillahi alhamdulilahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala rasulillah sayidina muhammadin alayhi wa ala alihi wa sahbihi wasallama tasliman kasiran asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu yéen mbokki julli ji ñuy déglu mbokki taalibe yi noo ngi tey fii ci kër Seexul Xadiim ni ko sunu jëwriñ sëñ Issa Fall waxe muy Touba fii ci Touba France Touba France nekk ci Paris fii ci Aulnay nu fas yéene euh, jëfe ndigal li nga xam ne moom la Cheikh Mouhamadou Mountakha wax yàlla na ko fi yàlla bàyyi ba mu ñu yàgg yàgg noo digal ñu yàgg koo jëfe muy bisu xasida yi ak alxuraan Euh, daanaka nag jëfe gi rek moom la ñuy fàttali nun danañ ko def nun waa Touba fii nun waa Touba nag fii buñ ko waxee murid yépp la ndax tubaa murid yëpp a ko bokk Touba it buñ ko waxee lépp a ngi ci biir am nañ fi daaray kaamil moo tax bi ndigal li jógee léegi rek laa dégg beneen annonce buy sëñ bi wax ne nañ jiital alxuraan ji itam ñooñu alxuraan nañu nañu jàng alxuraan muy alxuraan ji nga xam ne sëñ Mamadou Xabaan moom sëñ Fàllu moo ko jiite ginnaaw bu rahmatulah alayhi sëñ Maamoor euh, bi mu fi bàyyi ko kon bañ déggee loolu nun fii am nañ fi daari kaamil fii ci Touba France daari kaamil joo xam ne mbooleem doomi kilifa yi fi nekk ñii di jàng ñii di def leneen bokk nañ ci bi ma ko xoolee léegi rek dem na ci ñaar fukki nit ak benn yoo xam ne ñëpp ay fóore lañ moo tax dañoo daal di nañ tàmbalee alxuraan bu ko defee bu bis baa ci fajar alxuraan ji mooy njëkk noppi bu ko defee ñu jublu ci xasida yi du tee nag ñu continuer alxuraan ji waaye ni ko sëñ bi waxee alxuraan ji mooy laytaayu xasida yi moo tax waa daari kaamil fii ci kër sëñ bi tàmbali nañ ko alxuraan boo defee kon ñu nar koo toppee noonu rek ba ngoon li ci woo mboolem nag mbokki taalibe yi yëpp te xam ne fii mooy Tuubaa fii ñu war a ñëw ñëpp ñu defe ko fi ndax loolu mooy ndigal li jëfe gi nag kenn ku ne amal na la solo ndax jëfe ndigal la ci ab morit jëfe ndigal moo koy jëriñ ndax buñ ko xalaatoon rek dana baax sax def ko waaye nañ digal li mooy tax mu yàlla nangu gaaw gaaw koo nangu sëriñ Tuubaa sëñ Muntaxa nag lim ñuy woo moom daa jëfe it moom ndigalu sëñ Tuubaa rek ndax sëñ Tuubaa daa bindoon ne su ma dawaaw jumlatan war rujuuhu ilaa ilaahina taala bil xusuuci ka rujuucika li rabbil kalbi yakunu awla min amaa id darbi daa wax ne bu la dawkat bi sonalee dawkat tur wi ci wolof daa xaw a doy waar waaye xam ngeen ko mooy ab kalbu yéen nasara yi ngi koy wax ab cheikhuma bu la sonalee dellu rek ci boroom laqal ci moom moo gën a gaaw ngay jéem a dóor xaj bi ma tudd naa ko sax de ndax nee na boo delloo ci borom bu ne ko xëy rek mu taxaw waaye boo dee jéem a xeex ak moom mën a laa gañe ndax boo dee bëgg a dugg ci kër jàmbur goo xam ne ab kël bu daa ci bunt ba ngay xiiroog moom ne da ngay dugg boo yoxe mu xotti sa mbubb waaye rek da ngay woo kër gi rek bu ne ko nii rek moom mu taxaw mu ne koo ko nag kiy borom lépp fépp mooy sunu borom kon mu ne jàngoro ju mën a doon rek dellu ci yàlla dellu ci yàlla nag jaare ko ci xasida yi sëñ Tuubaa yi loolu moo gën a gaaw lépp jëfe ko ci ndigal it kon daal noonu la demee kon ñu fas yéene jëfe ndigal li te it ànd gi it muy sunu njëriñu ñëpp ndax ñaanu mbooloo moo gën a gaaw nga beru ñaan ñaanu mbooloo ak jaamu yàlla mbooloo it moo gën a yomb teewloo ndax boo nekkee ci mbooloo nit ñëpp di nekk ci dara dana la gën a yomb nga yow itam nga nga teewlu loola moo gën a yomb nga teew nga nekk sa kër yow dong beru fa lu ne sam xel di jaxasoo léeg-léeg bokkut boo nekkee ci mbooloo ci pay gi moo gën a bari eh, moo gën a it sakkan kon bénéfice la bu defee loolu lépp di dellu siwaat nag ci li ñu sëñ bi boole woon muy mbooloo mi ni ko sëñ bi tuddee woon Cheikh Mouhamadou Mourtada yàlla na ko yàlla yokku leer lim ñu boole woon mbooloo mi nga xam ne bitim réew gépp benn tur la leen joxoon loolu day daal dellu siwaat mooy at taawuni ala taatillaahi wa rasulihi mooy dimbalante ci topp yàlla ndax boo dikkee may ñaan ngay ñaan kenn ku ne di ñaan yàlla di daal di nangu ca ànd googu nu ànd mooy tax mu gaaw boo beer woon di ñaan mën naa am sax du demee noonu kon loolu di dellusiwaat yi ànd bi sëñ bi waxoon ne ànd leen ci dimbaleen ci topp yàlla kon nag yàlla nañ ci yàlla teg kon wax ji daal mooy loolu mooy fas yéene nañ ko def ni ko sëñ bi diglee ah, di diglu rek ndigal li ba keroog sëñ bi yeewee kon da yaakaar naa loolu moo ci am solo kon dañ ko tàmbalee alxuraan yoo xam ne ci fajar gi lana dana ab kaami dana mat bu defee ñu jàng xasida xasida ñii man alxuraan ne ci alxuraan ji ñii ne ci laneen ne ci laneen ndax lépp it lu baax la ndax it kiy jàngit ñay topp toog ñay lijjanteeg ñay yor sécurité baag ñu yor lépp lépp ci la duñ ne rek ku munte jàng sa yoon néewu ci ñëpp ngi ci ñëpp li ci sa ñoon nekk ñëpp ci mën a jariñ bu defee ñaan ci ak teewlu ba tey ndax jëfi diine teewlu gi maanaam dal gi ak yar bi moo ci jiitu ndax ku taxaw ci sa kanam boroom di ko ñaan danga nga war ko dal ak ak ak dal akub yar ndax boo tagoon ci kilifa rek kilifa àdduna rek danga nga teg yaru lool rawatina ki nga xam ne moo bind buur yi loolu mën naa bàyyi xel bu baax a baax a baax kon daal. loolu laa ne woon nañ ko ci gën a leeral di woo ñëpp ñu teel a ñëw ca teewlu ca yaru te solu sol ba jekk nag kenn ku ne buy jàkkaaroog boroomam na laab ca sol lu baax lu set la gën ci yéreem bañ koo jàppee rek ndaje du xew nag ak ñaan la ak ñaan la ñu bàyyi ci xel bu baax kon ñoo ngi woo ñëpp di ñaan yàlla képp ku fi ñëw li nga ci yaakaar ak la nga ci la nga ci xamutoon lépp ak la nga bëggoon te xamoo ko lépp mi ngi ci xasida yi xasida yi nag mooy sëñ bi njariñul sëñ bi nag mooy njariñu xasida yi sëñ bi nag njariñam ñëpp xam nañ ko ñëpp gis nañ njariñu sëñ bi jëru kenn du ko waxat kenn ku ne am na loo sëñ bi jariñ te sëñ mun taxaanee na wax na ko ba tey xasida yi mooy sëñ bi kon nag ku fi ñëw rek yaakaar na sa mbir yëpp mën na cee jaare faju asalaamaaleykum wa rahmatullah jëf bu ci la àndee ñoo ngi waaj def ko ci saal bi nga xam ne moom lañu jël ci booru kër sëñ bi maanaam pour mbir mi gën a yaatu rawatina ci jamono ji ñu toll di ci profito rek di wax ni liggéey bi ñoo ngi ko ànd ak daayira yi nekk ci Île de France bi yëpp euh, te li nga xam ni mooy seede bi mooy suñu mbokk taalibe yi nekk te euh, waa Jaawartulaa ñoo ñëw yore liggéey bi rawatina sax ñoo yore communication bi euh, ñoom sëñ Birane Seck ak ñu ñun ànd liggéey bi yëpp ñoo ngi ci biir ak yeneen daayira yi nekk ci biir Île de France waa Boustan ak suñu mbokk taalibe yi nga xam ni ñoo yore liggéey bi jëm ci si safar liggéey bi daal ñoo ngi ci woo ñëpp waaye am na njort ni kenn ku nekk xam nga ni sa sa njëriñu bopp la moo tax kenn ku ci nekk dinga nga ñu jiitu ci nekk ci àndukaak mbooloo mi di ñaan yàlla defal ñu ci tawféex lépp luñ ci bëgg suñu boroom sotti ñu ko ci barke Sëñ Tuubaa ci barke xasaay di asalaamaaleykum wa rahmatullah wa barakaatu. yaa rabbana yaa rabbana yaa rabbana yaa rabbana yaa rabbana yaa xibbana wajhu lana zawatu dinil faayiqat wal takfina ida maan wal baayiqat wa baynana wa fiq maa al awlaadi yaa malika al ibaadi wal bilaadi wa baarikan fiina wa aslix amrana yaa musiban bi xayri raddi lana lanastajib yaa xaaliqal kibaari wa jumlatin sigaari antal baari